pro bio naturel mbokk yi seen jaaxle ndax pro bio naturel daf leen indil ñaar ci ay de bio 100 naturel ñu defaree ko ci bi wax pro bio naturel daf leen indil pro bio naturel alde muy produit bi nga xamantane renforcé daf lay renforcer carrément ci walu sëy tagalé la ak ay jafé jafé new katan ay mbiri tële nag moom koy dégg rek wayé bolem amont pro bio naturel simpi bi nak yaram ci manam bolem lu ngeen ci ay ci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 kër yorom mu ngi tooj mbaaya gaane si te niveau bi la tooj sama nanguwul liggéey tax yoro di ko forcé daw di gën a ñàkk jom moom taatu ki cartouche kër yoro ngi tooj bëri phénomène ba mel ni lu ma bu tas ey kër yoro ngi tooj bëri phénomène ba mel ni lu ma bu tas ey yorok doomam yi lay jaaxle naa dee ponkal ne a liggéey. waaw ah, fu muy dem suñu dem duñ ma jël carte mille mi su ma ñëwee kii naan ma yow apprenti du carafil nga kii naan ma ay sàmmkat nga kii naan ma man damaa xamul daal man kan laa jël si yéen. xam nga lu ma lay yëgal. si yéen ñi. si yéen ñam. Hmm? yow Samba lan moo la teree nekk nit. lan moo la teree nekk nit. nit laa de mooy am homme laa de nit laa de. wala sa déguisement bi sa tubéy ji di mel ni machine wallukaay. waaw déguisement pour te sama papa euh, cosaanam laa sol mi ngi koy wàcc na man koy ah, wàcc na cosaanam nga sol eh xam nga mbalit euh, te mbalis tubaab am na bu fekkoon mbalis tubaab la sax ñu wax waaw xam nga buy day jër kettax xam nga kettax kettax kettax kettax eh, wa voilà kettax buy da koy jër mooy kii mhm. noonu la mel si man maay guy mooy kettax bi mhm. loo may xoolee sa bët dëmm yi kii nag Mamadou dama bëgg nga dimbali ma si. ça fait deux un mois wala vingt jours yoo xam ne maa ngi wër fu ma dem fa pour ñu jëlal ma jàngalal ma ko métti waaye ku ma dem ku dem bu ko xoolee rek découragé moom. sama kel sax génnoon na si yow bi may dog daal ci suba di dog ba mu yàgg rek mel ni dama romb benn tur ci miir bi ñu bind Mamadou man yéexee guerrier fàtte naa. mama dula tu da nga ma da nga nga ma karange do na weeru waa la karanke njege naange wala laange falay laange naar bi yow la laange ha ha mo yaa génne lii léegi nag mo bëggoon nga jox ma 300 mo moteli ma yore 700 800 la yore mo mot 1000 francs ma dem musée comprendre xam yow da nga rew wa la la da nga rew quoi parce que yow yaay gis yaa gis tay yëpp gisul luumu ndax ndax ndax musée bi. da ah. sama papa di ma tere. dafa am musée bi sama papa daf ma ko tere góob ah. diri sama ndekki laa la doon jox. Hmm. te léegi sama papa du ma jox ndekki daane moo dem wutal sama bopp ma liggéey. Sakkel daa nekk ci takka jabar. waaw. da ngaa xooñ. Hmm? sama papa dama lay laaj ndax da ngaa xooñ. papa xooñoo fan ngay dindee sa woñ. loo koy laajee nit papa yow tamit nag. dama lay laaj. Ah. da wax da ngay takk jabar ma ni la ndax danga ngaa wóoñ. papa ku xooñee mooy takk jabar. dama lay laaj ndax da ngaa wóoñ. waaw léegi man xooñu ma. léegi fooy dindee sa wóoñ. sa hmm? papa. papa fan lay dindee la. sa wóoñ. nu ma nu ma la koy waxee wala su ma la koy ban importance la ci pap man dama wara tak soxna wara tak soxna ma yaakaar ne jot na comme sama di ko sama morom yi eh, nga ma da nga xóon. ay mas yaa mun di. masu lan. do do ñu ñu mbaxal. lu mbaxal. ñu mbaxal nga indi noogaas. safara mo indi safara ñu mbaxal. yow ñu jouer yow am nga jam yow samp tay livre moy jouer de. sama yon neeku ci. wa sama yon neeku ci te balal ma rek ci wax ci dama sonn comme yow amo jom. ko haajumon ñun de ko mbawmi womi waɗi lima munoon def naa ko wër naa ba sonn amuñu liggéey loolu sa pas mon baax na léegi demal ma demal baax na bi wala si bit fu la neex li nga ah, de yaa ko jur de nappkatu sa doom laa ko jur moo bu pare naa ma daal di sa déguisement bi nga mel ni ku xelam lëj waa Poutine. ak nga ñëw nga indi seen bat ba combat nga xool ndax loolu dina ma yëngal. dégg bu taxawee mm. na ma bomba dal sama kaw ma dee faale ma bomba laa wax la faale ma bomba laa wax laa la desin fucking dash. desin fucking dash laa wax. calm down desin fucking dash. Doesn't fucking okay. die right Okay. okay. I know, okay. Arrêtez le. You're gonna get shot. Go on the Well Waaw go on the sack. ça. fii bu ça, tuddoo lay ça, tapal damay saaga sa ndey damay saaga sa je nga mel ni rang Casamance me y'a. waaye yow ma père ma père mi arrêté maa ngi toogaa lu ma xeeñ ma ñëwaat répliquer waaye góor boo bañee dem ba toll foofu da ngay teel a jóg ci sa bopp teel a jël liggéey def ko sa bopp danga may déglu nag yaa ngi may dégg du ma ko nanguwaa ah. yow tey boo nee du takk jabar waaw mu dem tooñ fi doomu jàmbur boo ma indil fii lu ma xam kan lay tooñ ah yàlla moo xam ku muy doon kuy dem du ngeen ànd. ay bu umbalee ma rey ko de. waaw oh, mi ngi nag. Eh, eh, eh, man sama der du ko yàq di. kon nag nga bàyyi ko mu takk jabar indi ci kër gi. du ko fi takke naw takka liggéey liggéey sëyal ko bu ñu amee doom mu tudd réussite. xoolal xam nga lan la. na dem takka liggéey mu sëyal ko ñu jur doom réussite. léegi yow yaa siy jàpp nag. ngir ngir man. man lu mu mënta def man naa ko gérer naa ko conseil conseil ko sama gagne la. Mm. maa mom mm. xamanté nañ bu baax. Mm. légui seet seet si papa Yoro ñu fi ñew rek. waaw sét ko mom man légui buma sét sétal ki ngay liggéeyal léegi. waaw ah, baax na ki mom sama way la. apprendre bu nango liggéey la. waaw xam ko démé na lu léegi graw légui mën naa koo jël. waaw nag su défé ay bêtises yoy dét wax ma jour yi ngay liggéey rek. dañ dañuy liggéey jour yëpp bam dess dimanche kessé dimanche do ko liggéey. dimanche kessé la do liggéey mais jour yi mu ñëw mu ñëw añ ñëwaat ñëwaat jeexna man ay parfois dimanche na ko jël si sax mo dimanche bo amé liguey boy wax boy wax may rek. ñeme nga wax. ñeme nga wax. ñeme nga wax si suwa ba léegi amo ku la jël am may wax ngay wax. yow gis nga sa papa bu ko wax ban heure jot bàyyi ko sama loxo man xawma ma kan moma ma jaaxal waaye moom mënal na ko tay wala suba. waaw de de tey yaay. Ah. te moom dama lay ñaan ngir lii laa war a sori man bëgguma kenn ku may wax ay wax yenn yi dama doyal. ah loo wax ni bu fa dem naan ko Mamour ni mu naan góoru yaay càppataan. kon léegi noonu la demee. dama la ko ñaan rek fa uy ma léegi bàyyi noonu rek mu sedd bàyyi ma jënd glace man a yow daal li ñuy wax man a léegi daal du ma la wax dara ci moom. Ah, kon da jënd glace jox sa noonu naan. ah baax na am du mën nga kaa gérer. man de boo ma ko autorisé woon bu ñëwee ma lijjanti. yaay bul dugg ci yooyu bu ko bu ko waxati dara. eh bi ma jëlee retraite nga ma commencé. yàgg nañu ko wax nag ku mottali sa dépasse mottali sa kaddu. waaw kon mi ngi noonu. léegi nga commencé mottali sama dépasse léegi nag man li ma dal nii du ko dal. li ma dal nii ngay mottali sama kaddu du takka fi jabar buy mottali kaddu. dina ko takk dina ko takk. dina ko takk xanaa yow yaa koy séyal. wala mu takka ma man maa dem ba ci rugi jàll teggil ma sama 1 eh, million ma takkal sama doom jabar waaw takka ko bu ngeen paree ngeen sëy ngeen génn ngeen bàyyi ma fi bis bu fi dugalee jigéen fii lay dugal jabar fa lay dugal li nga nekk rek yaa cee bàyyi bu ma saaga ndey ah bu de dina takk de bàyyil li ngay def bàyyil sama njaboot ma yar leen sa bàyyi dofloo na sàmba ba pare bul ma si tegalaat leneen ah bul ma si tegalaat leneen laa wax dina takk sa bàyyi dofloo na Samba ba pare doy naa munuma am doomu caat dof taaw dofa dégg nga de méritoloo ma loolu. wax naa la ko nag balaa ngaa jëkk rek tàngal ma fii ma wax fii ay wax yu saaga ndey wala may wax ko ñoo xam ne dañ ma ne téye voilà bul ma di yëngal nag. kenn du ci gàncax ana Mamadou Mamadou. Mamadou nekk fi génn na Mamadou.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 sol nii yëpp man maa tax naar bi nga am ko si naar bi parce que man maa lay jox code yi. ah yow xamuloo xamuloo de ma ma boo ma joxee code yi daf may nee sax ma ñëw demander la mais xam naa de. man man man maay con rek après ma ne la ñu jox ma jox ma code bi. mais man maa la gën a xam affaire yi te ma wax la benn affaire. yow billaay wallaay xoolal fii fii 3 4 5 6 7 jours. waaw dinaa la def lu xasaw. koy def lu xasaw. ma defee lu xasaw ma def lu nëb yow. waaw yow. gémmi ji. yow. waaw bul bàyyi naar bi rek. du tubay bu ngandee mooy tax nekk góor yoral comme fas waaye góor ci kol la seet naa ba seet nag yow góoru taat nga si góoru taat nga jabar nag lem ko bee mu toll ni mu tolloon ni bi mu toll ni mu tolloo nga lem ko ba mu jekk nga delloo ko fi nga ko jëlee woon. da nga li war a nekk sa programme. da nga jur say doom nangoo ñu màgg damaa toll fu ma war a takkee soxna papa ma ñëw ñuy waxtaan ci loolu ay dëng tubéy bu rëy ak lee yeggul foofu sama yaay sonn na ci dugg waañ bi war naa am jabar soxna soo xam dina ko ci wàccee. takkuloo jabar pour dimbali sa yaay de sa tubaay nga bugg dimbali xam naa la. <laughs> Ah, man dama lay wax parce que nit doo ñëw di liggéey foo xam ne xam nga ni liggéey bi liggéey loowuñ la. xam nga lu liggéey loowuñ kooku benn sama patron laa wax. waaw benn moom xaw ma séeréer la xaw ma ban ethnie la xaw ma ban ethnie la mais dafa ñaaw. dafa ñaaw. kanam bi comme comme carte beneen. carte yow yaa ko gën a ñaaw te yaa ngi nii ma supporté la ci kër gi sàmba lu ci sëyoon ci ñaawaayu jàmbur yow ñaaw lañ la wax nga xool wala liggéey. day dawloo sama yaram. léegi lan moo tax nga gis ma nga daw. ah bi ma la gisee sama biir bi da yëngu ma xam ne seen duus yi dafa salte am bëggoon daw suñ kër quoi loolu la rek quoi. Eh, eh. damay saaga sa ndey laa la wax. sama ndey boo ko saagee du am sens parce moom gaañu na ah, ah moom moom instant saag bi ko topp fenn. ma saaga sa baay. sama pap tamit moom guma la du gis boo ko saagee sax du am sens wallaay. ma saaga sa maam. sama maam moom tamit jigéen la ah, ah boo ko saagee problème am la. damay saaga seen famille yëpp seen askan. ah suñu askan ah bëri na ay. eh xoolal eh du ma sa morom booy wax ngay wax gaa. Ah. maa ngi jégalu maa ngi jégalu maa ngi jégalu. ñaata yoon laa la wax bàyyil Samba. lu tax mu wax la bàyyil Samba munoo bàyyi Samba. Samba da damaa sonn ci moom li li ma waroon ndéggee yëpp dama ko investir ci moom kon euh, il faut il faut il faut il faut il faut mu rendre ma la la eh, monnaie de ma eh, pièce. yow wér nga. Ah, ah, wér nga seen waa kër seetlu nañu la ba xam ndax wér nga. ah balaa may ñëw fii de wéroon naa parce que bi may ñëw daje naax ñaari nit ma leen bonjour bonsoir ñu ne ma merci beaucoup bye bye. munu ma laa jur ba pare bañ la. dégg nga ma hmm? dégg nga dégg naa la. su ma la waxee bàyyil góorgóorlul ba nga am nga soog a takka jabar ci diggante góor ak góor looy dem di wax jigéen ñi. Hmm? sama yaay sama kilifa la bokk. sa kilifa la. waaw ci kër gi la bokk tamit. moomu yëlif. waxuma loolu de. Hmm. am naa droit waxtaan ak yow.

kon beneen booy ñi ngi nekk di tuuf ay ñax yu bon yi. ñax yan yi Macky Sall di ah, tere. yamba voilà tere bi yamba lay tuuf. bu xëyee naa ko yëg bu xëyul naa ko yëg su dawlee liggéey bi naa ko yëg même bu doxatee ci place bi woo ma ne ma doxat na pousse wala doxat na tar. ma réglé doxat bi mu tëjaat doxatam loolu rek laa ñaan li si des yaa xam li nga bugg sa kol. yàlla na la koy yalla indil fils ak leew te xamna ni tamit mun nga liggey ndax bakkar nañ la ci koñ bi ni liggey bu baax rafet tegu ci yoon ay yakam la la laaj àllaaxira kan mo bëggul ndeyam yaayam ha legi man nga bañ danga bëgg sa yaay bañ ma man pourtant day ma sonna ci yow maa la jongal bu ma bu ma la jongalul won bu da nga judd ma war la jongal ma bay la nga nek bila koro do tal wax demay takk jabar do ko tal sabu bu nga rus wan ko sa jabar hol ko hol ma jonguuma rus lol ah li mo si sama fay janggal la jongal la dugal la si néegu gor yar la ba nga tollu ni nga nan ma dama bugu sama yaay dégg naa la <coughs> jar jëf taxawal fii mun na waaw gérer ataay ataay indi mu ma fii bàyyi ma moom waay dama la ko ñaan waay ñaan naa la ko waay dinañ ko rek ah jéggoo ko maa nga si yoon bi. waaw Mamadou. jar Diop waay. mooy. waaw nga xam ne ngeen bugg waay yal na la ko si yàlla defal waay. jar Diop waay. yàlla nga gudd fan waay. ba ñëw. sit down. waaw bi koy say foog mi mi na. loolu la la bu saaga Modou dégg nga ko ñaan yóbbul na la. you wanna die. yóbbul na la you wanna die or no. d'accord sit down. d'accord sit down sit down sit down. sit down. you think you think you think I'm playing. waaw you think I'm you think waaw waaw bul door bul door Modou eh eh waxal eh, yow. waaw waxal yow waaw jëmale na la. jëmale ko ñaan jëmale na la eh, jëmale na la.

yow ma wax la lima la wax dakal la foog ni dem nga ah. ndeke yow demulo yaangi ngi ñëwaat toog fii xaar mu ñew ah, man xaar mako fi fii lan ngay def si buntu keer gi ah, dama don dox après ma mané ma ne xaaral ma tok fi tout rek yow fan nga dox fi nga joggé fo doxé dem na fee dem na fee ni ci ki bi euh, keer ñu jaaykatu sow bi après ne lebal ma mu bañ lu sama yoon man xaw de man dama la koy wax ni rek pour pour ma tégal la ko quoi gis nga yow gis nga yow xaw ma jikku doomu xaraam nga may jaay xaw ma jikk doomu. Ah, maa la gën a ñàpp xoona ma. ah man du ma demalee ah, du ma ah, eh, ndax doomu nga xaw ma noohóor nga. ah nga fii bundi kër gi fii su looy wax. ama wax la kër yoro mu ngi tooñ. mbaa ya gaane si te niveau liggéey tax yoro ko forcé daw di gën a ñàkk jom moom daa tukki cartouche kër yoro ngi toj bëri phénomène ba mel ni lu ma bu tas ey kër yoro ngi toj bëri phénomène ba mel ni lu ma bu tas ey yoro doomam yi lay jaaxle naa ay ponkal ne ci kër bañ a liggéey